ak patriote bu baax la na gars yi dem abone ci kontam ndax dooleel ko da yi baax waaw gars yi kon ni ngeen ko gisee lës list xëy na ba ko gisee lës list yi xëy na ba ci kaw nit ñi ñëpp gis nañ ko rafetlu ko nag lool pas contestation non jamais may mu ko kenn ni président Ousmane Sonko def loolu rek la war a def ñii mu tànn nag ñooy dem assemblée nationale ñooy député original yi nag ñii kon na gaay jub jubal jubanti waaj campagne wulli wulli metti metti metti ndafa ak wa këram insha allah dégg naa muy nellu naan mom ndafa naan daa démissionné dan la dàq ponkal ne yëngu ñu koy dàq ya ñak fayda xamoon na den la dàq ndafa xamoon na den la dàq ndax sa lepp naxate ak wor la ak dil wa ta xam nga tuba bi ay dil ak wor yi france sax moom den wor den dil waye ni ngui koy defé dafa ñaaw kon na gaay focus le 17 gis ngeen compte bii ma affiché kii sama rakk patriote bu baax la na gars yi dem abone ci compte am ndax dooleel ko da yi baax